bi yoon na xam naa ni tuuti contribution lay doon ndax thème la bu am njëriñ ci sëñ bi fi nekk li mu ci wax nit mënu ko cee weesu waaye par expérience xool nañ ni tubaab bi politique d'assimilation boobu tàmbalewu ko rek ci école bi bien avant la ko tàmbali ci xale bi dañuy joxe exemple euh, la télévision rek fii ak band dessinée yi nga xam ne làkku français lañ koy def te xool nañ scientifiquement que ni bëtu xale bi rapidité bi mu am pour capter ay image mag mi du ko am su ko defee danañ dugal ay information yu bari ci biir bande dessinée boo xam ne mag mi du ko gis ci xale bi su ko enregistré ba pare jëfandikoo ko danaan lu baax la ndax su doon lu bon suma waajur dina ma ko tere mu tàmbalee foofu ñu xool ni diina jitim yàq ko dafa tàmbalee ci ki nga xam ne parce que xale dañ koy yar njëkk muy juddu lu xaw a raj la nag waaye lu xel neex ndaxte benn yàlla lum sant jullit bi mu wutal doomam ndey ju baax kon tarbiya bi foofu la tàmbalee di lekk lu rew ak dagan te xool nañ ni scientifiquement parlant liir bi su nekkee ci biiru yaayam su xasee ba am ñeenti weer commencé na di am contact ak monde extérieur léegi kër goo dem télévision bi mooy jàkkaarloog ndaw si nga xam ne ci boppam dafa nekk ci yéen wérul culture tuwaab bi moo ci dox wala musique moo tax gone goo gis léegi su juddoo mi ngi fecc benn gone gi su juddoo lii njëkk li nekk wërsëgam tubaab bi dafa yow mag ñi dañ daan bu njëkk dañ toqantal la fexe ba alxuraan jiitu sa biir léegi nag garabu kër docteur mooy jiitu gis nga tubaab bi suy jàng wala suy yàq du yam rek ci côté moom li mu xam waaye day fekk benn réew ak seeni culture ak seeni réalité mu fexel lu mu ci mën a jëfandikoo jëfandikoo ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko man arafa luqata min amali nasharahum soo bëggee mucc ci aw xeet da ngay fexe xam seen stratégie seen technique ak seen xam-xam bu njëkk loolu moom wàllu sëriñ si la ca fayir nañ ci génn nañ foofu wàcc nañ seen ànd ndax jàpp nañ ne ku ci xam alxuraan xam xasida yi rek war ngaa jiite wala ñu def lépp sëriñ waaye kenn koo xam ne soo dëgalee ñu def soo teree ñu bàyyi lépp luy yàq jamono muy doon li nga xam ne moo war a jiitu ndax dañ ne al madaris xablal masajid mu ñu njëkkee ci école bi balaa ñuy defar jàkka yi ñuy tàmbaliwaat ñuy continuer waat rek ci xale bi yar bi nga xam ne moom la ko tubaab bi di yar nga xam ne système bi moo koy def ci parent bi du ci am benn dogal te daanaka mën nañu wax ne lim ci man du bari muy almaru bi ibnu bi at yi nit koo gis rek environnement bi muy dund dafa am yi jeexital ci moom fii soo xoolee lépp lu wër xale bi su juddoo ba ci matériaux bi nga xam ne day doon lu synthétique li muy naturel du bari dafa am jeexital ci doom ba ci couleur yi nga xam ne doomu aadama mi ngi koy juddu dafa am jeexital ci xale bi suy doog di judd rawatina nag eh, climat bi nit ki nga xam ne nag moo yor doomam loolu lépp daf ko war a xam su ko xamut am na ci kenn ko xam ne mooy doon imam bi dafa war a xam loolu ngir xam société ni muy doxee ak ni koy yare ñun ñu ngi bëgg résultat mais su fekkee ni résultat yaa ngi bëgg a tabax ciment wu jàmbur nga koy defee ndoxum jàmbur nga koy defee place kër jàmbur nga koy defee su sottee tamit doo am benn prétention bu ci am problème mu écriture bi ñu doon wax ni lu doy waar la ci parce que sëñ bi wax na ko sànq am na ci notion yoo xam ne dafa abstrait ba su fekkee ne amul benn euh, matériel boo xam ne ci boppam fa lañ koy consigner sur le plan oral du jàll mukk kon xam-xam bi du mën a weesu mukk ñi nga xam ne boppam dañoo dem sur le plan civilisation dañoo am écriture écriture bi nag mag ñi xam nañ ne lu nécessité la woon waaye nag amuñu woon kii ba fexe na gis nañ solution mooy lu ñu daan def gone suñ tàmbalee nii nekk âge bi lépp lañ leen daan defal wala ñu leen di cax comme ça léegi ñi ngi ancré ci ñoom culture bi nga xam ne moom lañ judd ci dina tax ñu xeemeem réew ndax suñ bëggee xam histoire parce que gone xam su bëggee xam histoire fokk mu xam langue bi ko véhiculé te su boobaa dina mémoriser mooy su ëllëgee itam dafay vivre en fonction ci li nga xam ne boppam moom la dégg ci lépp bi jéem a incarner héros bi mu dégg ci néeg gis nga moo tax culture boobu façon yar boobu mag ñi dañu ko daan def jiitu suñu diine loolu bokk na ci lii ñu gën a gàllankoor contact bi xale bi di am ak jur yi léegi lu néew la ndax xool nañ ne problème bu am ci àdduna problème économique la ndax góor ñi seen warugar yépp dafa yokk waaye jigéen ñi la leen waroon lépp dafa wàññiku ndax góor ñi léegi ñooy rooti ndax ñooy fay ndox mi ñooy taxani ndax ñooy fay gaz bi ñooy fóot ndax ñooy fay mindaan mi ñooy togg ba soo xëyee suba bëgg a wut loo jënde sa crédit portable bëgg a wut télévision bu rafet bëgg a wut kër bëgg a nooy def dëkk dee ci àll bi rek ak a wut su ko defee ku jigéen ki moom day daal am jot ndax lépp teggi nañ ko télévision bi mooy doon référence am te ci lay yar yi nga xam ne moom ñoo judd ci ginnaaw loolu mooy vrai véritable problème bi problème bu doy waar la nag boo xam ne solution na ko dina jafe benn rek benn nañu fexe ba contact bi ñu am sëñ bi waxoon na ko sànq gis nga xale bi nga jur balaa muy am référence ci yow daf lay estimer man lii dal na ma amoon naa suma doom ma yóbbu ko ci daara mi ngi jàng waaye gars yi man ma nee nañ sëriñu daara bi ma ne ko léegi dañ lay tabaxal classe ay français yi ko man yóbbu ma ci dara classe bi tabax dañ ko tabax trois semaine trois semaine xale bi mu ñëwee bonjour papa la ma lu tax fexe nañ ba ñiy jàngal francais bi ci école bi xale bi xolam ci maanaam na mu koy waxee ci lay gën a ci ki nga xam bi da koy kaataaka nopp rek muy beneen problème nga xam ne rapport bi am kiy jàngale ak kiy jàng itam daf ciy jeexital naka noonu rapport bi doom ji di am ak waajuram ndax nit ki soo ko dugalee daara dafay metti alors xale bi lu muy def sama papa bëgguma sama bureau la kon nañu tàmbalee ci gone yi bëgg langue bi bëgg daara ji fi lan la na ciy gimmi rek ca bañ a gimmi ci leneen loolu problème bu mag la nit ñi foofu la ñu war a tàmbalee di xalaat xalaat bi bi ñu cerner problème yi nga xam ne ci boppam mooy ñëw en aval nañu xool problème yi nga xam ne ci boppam mooy nekk en en amont sëñ bi yu bari lim ci wax dara du ko dindi ci lépp noonu la demee waaye ñun suñu contribution rek mooy dañuy xam ne ci boppam yar bi dana tàmbalee lu jiitu loolu ca euh, expérience xëy na la ci ci âge ak daara yi ñuy jaar ndaxte ku ci nekk tam fa nga jànge dafa am jeexital yi muy def ci ci yow man doog naa ba am fukki at ak ñeent laay doog di xam sama papa lay doog di xam sama yaay bu njëkk bi ma nekkut go ma nekkee gone damaa jàppoon ne ñoom bugguñu ma waaye bi ma demee léegi ba tekki fi ñu ma dugal laay doog da xam ne man maa leen a lu ne gone gi nag su tollee ci âge boobu loolee ba ba muy gis tubaab bi nga xam ne ci boppam ci ay cadeau yooyu la koy combler danaan kii moom moo bëgg loolu lay enregistré nañu bàyyi xel ci lu bari bañ leen a yar ci ni nga xam ne tubaab bi moom leen di yar ci mbedd mi te ñun ñu yar leen suñu yaru biir mooy fi mu ne koo ci gis papa cadeau na muy def ba du nekk tubaab ban rapport nga am ak sa doom fexe nga ba fi mu ne yow mii sax yaa koy jéem a gën a suñu doom yi gis nga leen français sax suñu doom yi leen dàq prononcé français complexe bu mag la parce que tim dégguñu ñun suñu kër ci ñu won leen am nañ fullay fayda ni lii ñun moom la ñu sëñ bi wax na ko sànq réew moo dem surtout dans les pays da ngay gis ni immigré yi ñëpp ba ci tukkuloo di sax ñoo ëpp fulla wolof yi ci loolu nga gis ni làkkat yi sax ci côté boobu aussi saraxulee yëpp sax ñoo ci ëpp ëpp fulla wolof yi parce que tout simplement te comme même nit ñi nañuy waxal ñooy bokk même classe yi lu tax ñii di am yenn résultats yi ci ñun amuñ ko kon loolu mooy vrai mooy li nga xam ne ci boppam doon nañ ko ci wax rek muy loo xam ne dañ koy war a bàyyi xel ndaxte kat sëñ bi ñoom dañoo yar nit ñi ndax xool nañ ne éducation ndax Sëñ Tuubaa bi mu jotee ci yàlla mënu nga rabbi ashaabaka bil himmati wala turabbihim bil dersi himma googu day tàmbalee ci gone mooy jiitu dërs ndax gone gi su juddoo gis baayam mu nekk taalibe jarul sax mu di ko wax fu mu jaar mu nekk taalibe fu jaar nekk taalibe ndax su gisee baayam mu toog di toroxlu wàccee boppam su gisee sëriñ wàcce bés bu ne mu di ko gis loolu lay xam waaye mais suñu hmm? waaye ñun suñu juddoo lenn ñu nag gone yi ñooy bokk télévision bi di ko seetaan lu muy jàpp lii la sëñ Tuubaa santaane rek kon nañu xool millier bi nga xam ne boppam ci la ñuy yar gone yi njëkk ci biir kër gi balaa ñuy prétendre di leen ki parce que gone gi li muy gën a jàpp parce que ñun ni ñuy gisee àdduna ak ñoom ni ñu ko gisee safee de ñun liñ ni le cerveau ne pas multitâche parce que mag mi su demee xelam ni muy xalaate benn direction rek lay jël mooy li ko intéressé mais gone gi il perçoit son environ d'une manière sphérique sphère bi yëpp lay ki lépp lay bàyyee ndoo xel lépp lay jàpp su paree nag su demee ba nekk mag doog di sélectionné li nga xam ne ci boppam lii kat bàyyi terewu ma ko woon kon baax na lii kat société bi moom ko imposé woon naa xool ba xam ne naa ci jëf lii kat ëllëg mooy doon sama njëriñ loolu naa waaye boo dafa am âge boo xam ne moom la waaye nag su fekkee ni mémoriser yëpp dina def comparaison balaa muy commencé di xalaat d'une manière unidirectionnelle kon nañu jéem a jàng lan mooy gone yi xool naka lañ leen di yare ndax fi mu ne dem nañ ba yàgguñu fi waaye gis nañ ni suñu rapport ak xale yi sax rapport bi tubaab bi di am ak doom ñun moom la ñuy copier muy lu xaw a doy waar kon euh, ñu ngi sant rek euh, borom xam-xam yi ñu fekk ndax wax dëgg jàngee nañ fi lu bari jàngee nañ fi lu bari bari bari bari bari ndax sëñ bi euh, minante wuñ waaw waaye borom xam-xam bu rafet la ñu ngi tim wax dëgg question participation la def yoo xam ne tim jàng nañ ndax nit ki fi ak yaa ngi koy dimbale muy poser boppam question yaa ëpp koy dimbale ci ki koy ki koy jox ay ay ay réponse nit ki da nga koy jàngal muy remettre en question di poser wu boppam question moo gën ci moom nga di ko jox ay réponses ñun tubaab bi loolu la ñuy def dañoo fekk rek jox ñu te ñun bàyyiwuñu ñun posé wu suñu suñu bopp suñuy question pour résoudre problème yi kon jërëjëf. jërëjëf jërëjëf kon xam.